bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk kaay kaay kaay kaay taxaw nii waa CNG ci yokk nga waa li ma ciy yokk rek mooy euh, juróomi mbër yi nga xamante ne nii le 11 avril bii ñu génn euh, bi seeni fans amee lu ñu yàq ci arène bi waa arène sa ànd ak le CNG de lutte am lu bari lu ñu defaraat ci stade bi juróomi mbër yooyu euh, delloo nañ seeni licence ba pare jëpp nañ jox nañ leen seeni reliquat muy juróom juróomi mbër yooyu bëri woon la 11 avril. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistant bi ñu fi teew di nuyu mbooloo bi ñëpp di woo ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sama adversaire di ko wax ni rek jour ba incha allah rabbi na taxaw si biir géew bi rek war bi sifflé na taxaw déglu ma rek bañ ñu arrière bu bëggee ñu teg suñu reliquat CNG mi ngi nii. billaahi wallaahi barki Serigne Babacar Sy Malick ba arbitre bi taxaw dëggal boppam bolowaat man waaruma pour dara mais dama wax nga dëggal sa bopp waaruma ay dama lay daan dama ne wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sant bi ñu ngi sant suñu waa ñaari waajur bu baax di nuyu suñu papa yi fi teew bu baax baax di nuyu suñu papa Sowru di nuyu suma grand Pape Sarr di nuyu suma gars yi ma àndal ñoom Bada ñoom Pagala ñoom Dieng comprendre nga kii déggoon ma wax bi muy tombeel le 25 lu muy tombeel dimanche da dem dëkk ba nga lekk yàpp naan meew ñëw bu yaroo ma duma ko bu fi jadd jadee teg si bagaas la bu koy duma takk ko yóbbu ko bawal maa ko man maa ko bu doole maa ko dàq bëre ku julli ci bisaab maa ngi daxaar forox du la jaaxal man ma dund xoolee sama maam man su ma tëddee nelaw su ma tëddee di nelaw sax damay bëri kii bu ma kii lii du ko mbër la woon dëgg la respecté dama ñu la yow man la si biir géew bi man ak yow du lamb du la dama ñu fan si dañu respecté nañ ko nangul nañ ko mais man ak la ma duma la duma yu metti amul problème soo bëree ma daan amul problème yàlla baax na yàlla baax na parce que laa yow doo tuura déggoo ma ay jiw booy déggoo ma de man ak yow la man ak yow la nga xool ma dépa yow na ay parcelle man ak yow kessel bar bi siflé damay la man ak yow la voilà waaw damay soo baj bajee ma duma la tàgg waa Pikine may la mënu ko le gaay indi wax bu ci yëngu ko taxaw dëggal boppam toogee ko tey li ma lay wax soo ko ñemee dëgg du man ak yow daa bari dama ni loo bëgg li may wax soo ko ñemee ñu teg suñu li ka demal des na ci yow ñu ngi nii nañ ko rëdd nañ ko signé léegi nañ ko rëdd ñu ngi nii nañ ko rëdd lay wax ci sponsor bi nga sol waaw ñii dama leen di jaajëfal bu baax di leen kontaane di leen ñaanal jàmm ak tawfiq wax jàppale nañ làmb ah. àdduna nii la ñeneen ñi nañ ñëw ñeneen ñi nañ ñëw bu baax a baax te ñun mbër yi ñu koy solal tamit Mantezo mezo rezo. Tangal mantu fereso. bëgg naa leen yéen ñëpp. dal ba dal bu dal ba wan keeso meeso reeso. tangal malt fereeso. bëgg naa la. jërëjëf borom Touba borom Touba. xat faxa kabala xat basa fadala fa duuru wa nafsi jaay. di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay. di ni ngeen ko waxee woon keroog rek yéen ñaar waxante bëgg di bëgge àdduna gi ginnaaw ma sante yàlla di juri si Mariam bu sel mi dina alleluya alleluya yaay di woo sama mbokk njaago yëpp ne a ak ci te ko ci bilaay walaay yaay di woo nantey jàmbaaru bambay di woo ñëpp waa di waa di nii ñu fi toog ñoom suñu papa yii nii ñoom père ma sa waaw ñëpp di woo ñëpp yee di naat gaay nañ ci jàpp yee wan keeso meeso reeso ci amul lu may wax moom maanaam wax nañ yàlla nañ ma yàlla may ndam yee di woo ñi ma àndal ñëpp bilaay maanaam kii kii kii ma sax di wax woote tey fee di woote incha allahu rabi le 25 maa ngi koy gërëm moom na gërëm tey gërëmal tey wooteel tay booy roy dàq lañ kii bërëg man da ngay dem waaw ah, booy booy ay roy dàq lañ bul basé si Laurent bandi la ma du ma bandi de. tapal nga nga ngay basé wu si man. duma xaare duma baale non perdono iliego non espero mi rego. ba si su ma la jàppee ala borre borre fi ala borre borre. tapal nga tapal nga mais foola mais mbal moo ko nunu foola baale ay kee duma bu keñe. kii la nga du dégg. ma la yow si xarnu bi barki Serigne Touba soo xeexee ma duma la soo bëree ma daal. Ouzam dañu may cinq minutes ñoo la ko ñaan cinq minutes ngeen may ñu xam nga booy bi li laa lay wax tey du bési wax yee man maa ngi woo ñëpp yee man maa ngi woo ñëpp xam nga waa di woo waa demen demen tapet laa looloo baax mais bandi bu dugg sama garde ma mettre la en respect xëppoo suuf tañ mbaare nga naa ma tapet sama jarbaat bu jigéen su jàppee kii duma ko daan ko zawel moo mën kii fuuf nga maag kii sama jarbaat bu jigéen xoolu ko di ñaan yàlla ndam wax ju bëri gi sax jaratu ko yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam yee di woo asu yaay faal yee di woo jàmbaaru bambay sëriñ Seex Tiijaan di woo nday Sarr yee di woo ñoom mi waaw ñoom ami caam di woo ñoom yuus ñoom malal ñoom kaaw ñoom jeego ñëpp waa di woo tamit xam nga Demen ak Demen production te seet bee ngi yee ñii moom gaan waa ngàcce ngaala mais ti kiiwal ma lii ma wane lii gaan bilaay ñii dañuy sonn si man bu baax dañuy def si man xaalis ay million njokka njal bilaay Demen TV ak Demen production ñii waaye télé lañ yor yee ñooñu Europe Angleterre di ràcc maasaale teg fay yaañe mais di woo ñëpp bàyyi sii di mbàqe ñëpp di woo sama papa Unda xaadim puune safa allo waa mafi ñoom David ñoom mëma ñëpp di jégalu ñëpp ay eh, bële waa di woo ñëpp père di leen woo yéen ñi ñëpp ngeen jàpp si ma daan boole man làmb damaa soxla man làmb lu muy joxe lépp laay def làmb daa suruxoon maa xa dekkil soo duggee si tiktok bi man nga fay gis Instagram bi man nga fay gis YouTube bi man nga fay gis suñ ma jàppalee man ma doon champion su aw ma jàppale na ma gaa jàppale ma doon champion billaay wallaay taalaay waa di jégalu ñëpp nag gaan ay ndaw lañ deg deret day circulé deret day circulé pare ngir yàlla doo ma gaaw ah. waxu démb mooy sama waxu tey man damaa judd pour doon champion yooyu soy nacido para bol beren campeon eh di bëggee sama mbokk espagnol yi ah. jàpp ci combat di leen naan ay quiero ganar por mí que Dios la victoria yo quiero dar a madre Lamine sama yaay daal lu ma ko bëgg a teral ci làmb mais nekkul njaago përëm bii moo ma koy teral teral ay kii di nga naa ma or jërëjëf kaay kaay kaay bébé guy gi maa ngi ñaan si Yeesu Krista di prière si Mariama bu sell mi di ñaanal suñuy waajuri jigéen yàlla leen fi yàlla baax ba si kanam di ñaanal suñuy suñuy waajuri góor fi ñu tëdd yàlla suuf si woyof si kawam di nuyu samay paay fi toog yëpp ku nekk sa tur ak sa sant ak ñi nga xamante ne ñun mbëri ñoo leen tax a déplacé wu di nuyu ñi nga xamante ne ci làmb ji maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal sponsor yëpp dañ ko war a si bu baax di bëggee waale sama benn grand boo xamante ne waa waa ji production may production maa ngi di bëggee bu baax a baax ñu ngi may jàppale saa su nekk di bëggee waa Géejawaay fi ma jógee maa ngi bëggee waa Géejawaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di ñaanal képp kuy mbaru Géejawaay yàlla na la yàlla may ndam asalaamaaleykum maa ngi sant ñu fi toog ñëpp ku fi nekk sa tur ak di nuyu waa Pikine di nuyu waa Géejawaay moom Géejawaay bu muy wax nii sax man maa gën a xam Géejawaay Géejawaay bi muy wax maa gën a xam Géejawaay man dama dawal saret pour feeraay def lépp kii man ak moom bokkuñu barki Seydina Mouhamed bu arbitre soufflé nga xam ne kii man moom bokkuñu man déggoo ma ne xaw mën a bëre la lu mu liggéey liggéentiwu ma ko kii bu làmb bu arbitre soufflé daf may jébbal làmb ji barki alxuraan bàyyee ma duma ko maa ko na loolu dañ ko tayle ngay jéem a dof dof boo nga maase ko ak yu kenn xam loolu la géeyawaay laa juddoo yaroo fa màggee fa te lu mu wut si géeyawaay dëgg la mbër la ñàkkum am supporter fu nekk man waa Pikine dañ may bëggee bu baax a baax a baax di bëggaat njaago bu baax kii li ma koy wax leen la le vingt cinq yàlla ma yàlla may ndam ci kawam loolu laay ñaan yàlla si borom père déggoo lu ma la wax. Lamine musuma bëre combat bu yomb yow Lamine xam nga moom bu baax a baax a baax ñii yëpp xam nañ amateur yi fi nekk yëpp xam nañ Bébé Gouy Gui musu bëre lamb bu baax bu bu bu yomb samay combat yëpp a métti kii fu ma nga bu ñu ko joxoon adversaire boobu du ko jël xam nga li ma la wax bu baax. yow lamb boo doy waar rek. yàlla xam na ni. bu dee victoire maa ko victoire maa ko ay combat. lamb boo doy a xanaa ma dégg yow lamb ji soufflé lamb ji dañ koy joxe boo ko déglu doo wala mooy soufflé lamb ji soufflé arbitre mooy soufflé a këx a këx sa jëng de palaay man leen domin bi damaa ñuul kuux man leen domin bi xanaa déggoo li ma la sa jëng de palaay Pokola bu neexee yàlla suñu borom dama lay daan ba toog sa kaw bu da ngay jébbalu neexee yàlla suñu borom Pokola kii dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu doole ci laa ko may man mbër taxul ma am tur du ma doomu mbër du ma jarbaatu mbër sama yaay du doomu ci mbër Bébé Gouy Gui dafa ba toll fi mu toll nii tey liggéey damay entraîné eh, teel a tëdd ah di man dama bokk si làmb yow boo xoo si làmb de da taataan làmb kuy taataan làmb ak ku bokk si làmb bokkul da ngay xaar làmb taw tuuti nga wut benn pot taataan ah, da ngay taataan boo xoo si làmb de ma la ñu waxoon seq bu la wax ci sponsor bi rent dégg dañuy luye oto ñii moom kenn du ba ca topp jaman yóbbul nasar وسبني تستمر tey yow bu baaxee ñu dem kaay waay bu baaxee ñu dem kaay waay tey Tus Tasar doxal bu baaxee ñu dem kaay waay jaxase ak ñoom waxal sama man ak yow laa la wax dama bëgg nga wax sama diggante mënu ma jaxase ak samay père dégg nga kii lu ma koy wax du bandi du puus du paas dama lay ninja boo dama la doo bandi waaw yow waaw yow déggoo li ma na fere na daf ñàpp tey amul tëj waaye ku ko dëgg soox yow doo tuus tàppet nga da ngay yokk fit laaj na ëllëg seen junior ne bokk nañ écrit ah. yàgg nañoo contact xam nga laa nëbbu yàlla julli si laa nëbbu waxula dëgg di sant samay ñaari waajur di sant presse bi fi ñëw ñëpp site internet yëpp Equivox Lutte TV xam nga Leewtoo gaa yëpp waaw waa Thiey Dakar gaa yëpp maa ngi nuyu ah sama gaa yi waaw kii lu may wax ci moom rek bala may wax dara damay sant waa Géejawaay di sant sa mafia waa yëmbal xam nga benn barak gaa yëpp waa marché samedi marché Ndiarème Bagdad di bëggee gaa yëpp di bëggee waa Gunaas bu baax a baax di sant Baydi Sey Baydi Ba maire Gounass mu ngi jàpp ci combat bu baa di sant Aziz Ndiaye bu baax sampa ñii samay père lañ maa ngi ñoom dañoo yàgg démb un million mënu ma jaxase ak ñoom dama ñëw pour neexal nag ñëw ma pour xuloo ñëw ma ñëw ma pour dara ñëw pour neexal moo fi andi yow sekkuma ak yow ay neexal yow ay neexal waxuma ak yow samay père laay waxal ganaa ma la waaw ginnaaw bañ sant yàlla bi di sant samay ñaari waajur waa ñaari waajur nañ wax ci laa la bul sant leen yow dafa jeexagum ba ngay sant waxal ay càmm per càmm per yow bu ma jeexasee affaire bi day saf bala bëgg li ngay def ne amatul amul amatul yow booy doo bani dama lay linjaa bisu combat ma daan la pousse doo passe déggoo li ma lax de kii Pape Sarr su ma kii basu oral nga tëdd déggoo li ma lax de waa taxawal waxal ba pare xam nga di sant waa Géejawaay di sant man Lamine ma dama nekk si ay loxo léegi. tey yaa ngi ñàkk de Bou Siteu tey damaa ñàkk. tey moom xëppoo tey xëppoo ma ndox. tey damaa ñàkk. Ah. di sant waa Géejawaay bu baax tey temps yi dama nekk si ay loxo. dama nekk si ay loxo temps yi. et puis yokk volume bi. dama yokk dama des na. li des si combat bi dinaa ko teg lu métti. xam nga. kii na dem taxaw nee Lamine. mu taxaw nee. combat bi dina xam loolu entraînement. di sant ku si mel ni.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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk